koli da ngeen di am jom nag cette fois si ngeen désabonné bloqué mer quoi mer mi mer mi na ko jar quoi xam ngeen lu moo dangeen ngeen di mer mer bu baax mais su ngeen toogee di ma seetaan nii damaa neex la amee damay ñëw tuuti rek léegi da ngeen di xëy rek gis na bëgg ngeen <laughs> te doo leen ci mun dara donc bu leen ubbi accès boobu da ngeen may da ngeen may déglu rek bloqué maanaam bu leen nangoo déglu bu leen nangu loolu de su ngeen dégloo rek man man drogue laa bu ngeen dégloo benn rek da pourtant dafa juum rek ah nañ ko baal rek faire très attention faire très attention foog ngeen génn ci man balaa ma leen di ndaxaat ngeen bëggaat ba su ko defee nit ñi naan sëñ bi rek laay topp moom rek laay topp uy leen kii al amin mu ne seetaane rek moo lay suivre man mosuma la topp te mu ma seetaan bay commentaire <laughs> <laughs> yow doo rëcc xool leen ko pin naa commentaire am bi xool leen ko moom photo sëñ Touba la def al la tudd mu ne seytaane rek moo may suivre moom musuma topp ba pare mu may suivre ba am joti commentaire suma live waaye lu ngeen wax ci naafeq bi <laughs> yowoon jàpp naa la yowoon doo rëcc looy wax waa koñ ba <laughs> al amin looy wax waa koñ ba xanaa gàcce war na laa rey nga ne moom moo bind seetaane rek moo lay topp moo lay suivre man mosuma la topp ba pare mu may seetaan bay commentaire ay al amin looy wax waa koñ ba amin looy wax waa koñ ba gàcce gii foo koy waxee ay al amin man sa rus naa ay yow rus naa foto sëñ Tuubaa bu rafet bi nga def nii rek moo métti ay yow rus naa waa commentaire bu foog mu dem kii fi ma ko képp dafa baax dama ko teylu ba mu bind rek ma pin ko maa ngi gis commentaire yëpp mais ku ci bàyyi buul xel ba ma kepp la ba jàpp la ñëpp a ngi capturer live bi di nga siw ni Fatia <laughs> ay commentaire rek lay xool ku ma ci jekk ci commentaire ba ne la taf ba kan la sëñ Bamba dootoo ko defati mais am na ñu am courage am na ñu am courage de ay vingt sept demande la pour ma jël leen suma live ñu ñu am nañ courage de yéen leer na leen ne cent di dimanche duma leen jël suma live ba pare ngeen am courage def demande quoi pour que ma jël leen trente et nit ñoo def demande pour ma jël leen yéen a ngi mel ni ku bëgg visa te amul passeport <laughs> yéen a am courage <laughs> du ma leen jël léegi 37 la 39 demande eh, gëm leen yàlla duma leen jël da ngeen am courage. Hmm. waa ji dafa waaxoo def foo dem mu ne Amérique loo fay dem mu ne dafa fa am soxla amul visa amul passeport yéen a ko ëpp courage. 41 personnes ñoo def demande ñu ne pour ma jël leen suma laaj <laughs> bi lay baa ngi ree mais aw ma invité semaine prochaine laa bëgg a ree ñi am neen courage de. waaye léegi yéen ñi def demande quarante six quarante sept personnes ma laaj leen comme dëgg-dëgg da ngeen foog ne dinaa leen jël wala da ngeen koy def nii rek xaaral xool kan ak la ma liir seen tur yi maanaam ñi def demande kaay leen ci yéen lay ñëw. cheeteet teet Aja Aja Astu Mia Fall Bébé Leila Awa Jumel Koulibaly bu Makki princesse Aïdara Kara bëgg fàllu princesse Saliou Preuve Eh, ñi def demand laay liir nii Babou Cissé Patriote Saliou Amadou Sène non mais non mais quatre-vingt-quatorze nit quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit personnes ñoo def demande pour que ma jël leen ci live bi quoi man loolu cent plus yegg naa cent plus laa dama sonn awa bu rafet Kumba Faal Bote xës bopp Boy Ziguinchor Eva Mbeng Insalihat Fina ah ñun ñëpp def leen demande Medzo Mascon bu Sonko Abdou Cissé Malick 83 officiel Cheikh ABC Mohamed Niang ñi ñëpp dañoo def demande ñu ne pour ma jël leen suma live ay ree moo ma jàpp fu mu nekk nii ay ree ñoo ma jàpp ay ree ree ree moo ma jàpp mane dafam benn laaj bu ma leen bugg a laaj yéen ñi nga xam ne yéen a jël palaasu yàlla ci man ginnaaw bu ma waxee lu waxuwul tuub ko ngeen maanaam effort yi ngeen def ak ité yi doo leen dimbale seen bopp ngeen def ko risaala bi yàlla jox yonantu muy alxuraan ngeen àttewoo ko te bàyyi constitution tubaab bi wala loolu du xalaat maanaam effort <coughs> effort yi ngeen di def ci daw di góorgóorlu naan dañuy porter plainte Cheikh Ahmed li la def waa du ngeen dajaloo comme quatre-vingt-quinze pour cent musulman ngeen ngeen jéem a fexe alxuraan àtte leen wala loolu gënul pourtant li ma wax xalaat la de su fekkee ne yéen yàlla jaral na leen lii da ngeen di def li yàlla wax bien avant. xam ngeen ne bu ngeen doon àtte sharia konoon lii du am luy am Sénégal du fa am man loolu laa gis daal su leen yàlla jaralee saaga ndey jàmbur yàlla jaral leen rey nit yàlla jaral leen lii lépp mais rey leen seen bakkan ci yàlla bu fekkoon bëggu leen waxi kattante ku ko fay wax kenn du ko déglu mais ku wax kattante nit ñi seetaan la moo day wane taati nit ngeen koy seetaan Mollah Morgun day uññi sutura gor ngeen koy seetaan Cheikh Ahmed ñëw jugee gàmmi ngeen yëkkati ko ba ca kaw su fekkee ñu baax ngeen dëgg dangeen ngeen yiw comme ni ngeen koy waxee mais pourquoi ku mel ni aadamoo ku mel ni Maam Ndiaye di jaay xeesal Cheikh Ahmed di jaay garabu kattante ñi ñëpp am doole ci réew mi pourquoi dañuy waxante dëgg tamit nag waxtaan bi neexul xam naa ne métti na mais dañuy waxante dëgg quand comme yéen ngeen ne man dama réew nit ku bon la mais nan la nit ku bon mun a amee place ci seen société su dee yéen da ngeen baax guerre bi dafa door commencé. ki sëñ Bamb guerre baa ngi door a door maanaam man li ngeen may wax ci lu bon yëpp nangu naa ko lépp man la mais nan laa mun a amee place ci seen biir tontu leen question bi maanaam ngeen ne dama alako dama torox dama saaga yàlla nit ku bon la duma wax lu bon lii lépp dëgg la nangu naa ko nangu naa ko mais léegi nag da ngeen di laaj seen bopp comment ma am place ci seen société ku may dimbale tontu lii kon mënu leen a tontu ba tey ñii naan sa ñaawaay bi dañuy kat sa ndey den sa baay sa sa yaay ba tey mënu leen a tontu hmm. dix zéro waa so kii kii nee na société doomi xaram la waa société doomi xaram ke bu ci doomi xaram nekkee wàcc na kon luy problème bi c'est ça quoi dëgg yi ma leen di wax moo leen di métti waaye di ngeen ko dégg. al amin ñëwati nga uy leen al amin anam yow moom sa commentaire duma la may dara al amin uy leen suma waa ji moom ba tey mu ngi may seetaan moom mi waxoon ne duma seetaanee may seetaan moom duma topp moom al amin ba tey mu may seetaan am na fi une heure de temps ci live al amin yow nga ne sénégalais moo bëgg lu bon waa sénégalais su bëggee lu bon am ku koy jox lu bon nan lay taxawee ne kii dafa bon al amin yow da nga contradictoire de <laughs> yaa ngi dugal sa bopp. al yow munoo munoo wax bul di commentaire saa yoo defee rek juum al amin yow moom fi ma la képp dafa baax saa yoo ñëwee mu dur la 2-0 nga wàccaat. maa ngi coupé live bi fu mu nekk da ngeen may muñaat su ma amaatee envie dinaa taalaat ngeen ñëw ñu waxtaan incha allah.